mbokk internet di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm tey ma indil leen benn histoire bu xawatee doy waar beneen bi aussi di sàkku rekk ci internet yi vraiment ñi nga xamante ne dañ fiy faral di indi seen i nettali ñu ñuy indil nettali yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla bu ko nit déggee dina xam ne kat kii njàkkare la nekkee dafa am lu doy waar loo xam ne bëgg na ci leçon xamul nan lay dundeek loolu faaw mu partager ko ak mbokk internet yi ñu daal di koy jàppale ci xel wala ci solution li ñuy sàkku gënaluñu ci yenn yoo xamante ne da ngeen di expliquer ne man sama kii laa nekkaloon sama benn maire moom laa dooroon ngeen baal ma ci wax ji après ma accro vraiment vraiment yooyu tamit xam nga dafay xaw a nekk loo xam ne bànneexu bakkan la nit ki di topp ba pare après naan dafay wut solution yi ñu doon gënal daal mooy que yi nga xamante ne euh, dangay am problème boo xam ne wax dëgg fa yàlla problème bii yow dépassé na la te bëgg nga tamit euh, internet di jàppale la ci xel ak xalaat mooy ñi nga xamante ne peut-être dañoo am genre trahison wala lii ak lii yooyu tamit nekk na yoo xam ne wala nga nekk ci këru famille ñu def la yenn situation yu metti nga jaaxle xamoo fan nga jëm yooyu yëpp nettali daal dina ci sawar beneen bi aussi ñu xam ne numéro bi affiché ci émission nettali du man du sama numéro ñenn ñi nag dañoo jàpp ne sama numéro la ba tax na dañ ci envoyé yenn envoyé yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla aussi ñu ndax wax naa leen ne fii numéro bi DG moo ko yor te it wax dëgg fa yàlla di ko envoyé loo xamante ne yëfi manque de respect la aussi même su fekkoon ne man maa yor numéro bi sax am na yoo xam ne nit ki xamoo ko xamula waroo koo jël di ko envoyé yenn yenn yenn affaire yoo xam ne yëfu manque de respect la loolu rafetul émission bi dañ ko taxawal pour di jàppale ñi nga xamante ne dañoo nekk ci ay jafe ci ay xat pour pour di nekk fii di manquante de respect te wax dëgg fa yàlla aussi ni ñuy bëgg di respecter ñi nga xam ne dañuy indi seeni nettali ñu respecté leen ak lu nettali bi difficile difficile wax ci gémmiñ ñun ñu forcé ko ba nettali ko pour rek bu ko defee internet di jox la ay conseil wax la lu la ci mën a fekk ba nga bàyyi ko kon tamit dañuy sàkku ci ñenn ñi du ñëpp nag ñu delloo ñu cër boobu ndax nag bu ngeen ñu delloowul cër boobu di jël numéro DG bi di ci envoyé ay yu doy waar loolu rafetul ay ca nag di jéggalu ñëpp wax dëgg fa yàlla du ñëpp nag boo gisee ñuy wax dafa am na ñenn ñoo xam ne moom faaw ñu boole ci lu ci bokkul mais nag yàlla nañu yàlla dolli sutura uh, te di wax rek ñu góor góorlu ci bu baax tey nag ma indi leen benn nettali bu xawatee doy waar aussi lii benn xale bu góor la xale bu góor bi moom nee na yàlla dafa def mu daal di bokkoon ci benn groupe bu whatsapp nee na ba mu bokkee ci groupe whatsapp bi nee na mu ñu daal di def group bi daal ci def benn loi boo xam ne ah, chaque samedi kenn ci ñoom day présenté wu par kenn nit la ñuy def chaque samedi nga daal di présenté wu. nee na ñu koy def di ko def di ko def ba yàlla dogal am samedi boo xam ne dañ koo ne yow yaay présenté wu tey ci groupe bi. nee nag bi yàlla defee muy présenté wu te nee ñoom suñuy présenté wu da ngay dugal sa ñaar ba ñetti photo après nga daal di wax yow la kan nee na nag bi mu xamee ne moom moo war a présenté wu nee na moom yàlla dafa def day dugg salle di entraîné des fois dañ ko fay photo ay photo yu rafet nee nag mu daal di xool photo yi nga xam ne fa duggee salle di entraîné nee na mu daal di jël photo yooyu daal di koy dugal nee na bi mu ko dugalee ndekete am na benn femme bu nekk ci groupe bi xam naa photo yi daal dina koy attiré nee na femme bi daal di koy jël PV ma ne ko ca cey ara ma naan sama café si laazit nee na bi ko femme bi jëlee PV ñoom ñaar ñuy waxtaan di waxtaan sekk jàmm di kaf di foo di ree di tooñante dama dem sax ba mook femme bi wax dëgg fa yàlla ñuy kafante di tooñante te mosuñoo gisante nee na am bis femme bi daal di koy invité këram nee na mu daal di tontu femme bi ne ko non man nag nekk naa nit koo xam ne duma seeti jigéen nee na femme bi waat mu sedd ñoom ñaar ñu continuer waat di waxtaan temps en temps ci whatsapp bi di sànnante xeer nee nag ci noonu femme bi commencé di ko may xaalis parfois vingt mille parfois vingt cinq mille nee am na benn mois boo xam ne sax femme bi soixante mille la ko may. nee na ba mu woo benn xaritam di ko ko expliquer naan ko vraiment femme bi ma xamante la whatsapp ku baax la daf may may xaalis te ku am yitte la ci doomu aadama nee na nag mook femme bi ñu continuer ci noonu continuer ci noonu femme bi insisté waat beneen yoon ne ko dama bëggoon nga ñëw sama kër nga seet si ma nee nag jour boobu mu ne femme bi vraiment man seeti jigéen du sama affaire mais nag yow wax dëgg fa yàlla boroom mbaax nga dinaa la ñëw seet si benn samedi bu ko defee ñu toog waxtaan. nee na femme bi daal di d'accord nee na am benn samedi mu daal di libre mu wow femme bi ne ko tey damay ñëw sa kër ñu waxtaan. nee na mu laaj femme bi fan la dëkkee femme bi wax ko benn ville bu xaw a jege Dakar. nee na nag ci laa jëlee taksi daal di dem wutali ville boobu bi mu egsee mu woo femme bi nee na femme bi daal di ni ko jox ma taximaan bi nee na mu jox ko taximaan bi femme bi wax taximaan bi koñ bi mu dëkkee jox ko adresse bi ba mu leer. nee na comme taximaan bi nag xamoon na koñ bi moo tax moom jotul a xam sax koñ bi nu mu tudd nee na taximaan bi daal indi na ko ba ci benn àngal daal ne ko wàccal fii la. nee na bi mu wàccee mu daal di woo femme bi bi mu ko woowee nee na femme bi daal ne ko maa ngi nii di la séen xoolal ci kaw ci étage bi la tiim nee na mu xool ci kaw nee na femme bi nekk fu kawee kawe ba mu koy tooñ naan ko yow fi nga dëkkee dafa sori ci kaw nee na femme bi ne ko bunt baa ngi noonu ci suuf dugal nee na mu dugg mu sone bi mu sonee benn waay moo ko tijjil nee na moog waa ji ñu daal di jàmm sante nee na waa ji daal ne ko directement femme bi diw mi ngi ci kaw nee na mu yéeg bi mu yéegee ba egg fi nga xam ne fala la femme bi dëkkee nee na mu egsi moo femme bi ñu jàmm sante mu toog nee na femme bi daal di koy xellil café mu naan mais nee na bi mu naanee café bi ba pare dafa mel ni kuy bilimbaane commencé di miir nee na moment bi muy miir nag mu daan ne femme bi est-ce que dooma may ndox ma naan nee na femme bi may ko ndox ba pare daan ne ko dangay ñàkk comme yaa ngi ñàkk dangay jël mouchoir bi nga tooyal ko nga daal di koy taf ci sa jë bi nga jaaxaan xëy na après affaire yi dina bàyyi nee na nag bi mu jaaxaanee daldi jël misuwaar bi tooyal ko taf ko ci jëwam bi neena na moom daal dafa jékki-jékki rekk waayam ji daal di jóg taxaw wow kongu ma ne ko ca eskey xaaral <laughs> man naan ci sama kafe silaasib bi man nee na ba waayam ji taxawee wow kongu nee na moom nag ci la ne bërët daldi di jóg daal yëkkati misuwaar bi teg ci suuf daal di kebale tànk yi nee bi mu kebalee tànk yi daa di toog nee na femme bi daa di jóg dugg ci biir daa di sangu ba set daa di sol benn mini bu gàtta gàtta gàtt ba pare femme bi teg ci ne jiitalul dara nee na temps en bi di di di seet seetlu dara ci ci ci saal bi di ko sëgg di ko juutu juutulu di di ko jëmale ci moom mais nee na mu daldi am maîtrise ba tax na faalewul femme bi nee na ci noonu femme bi daal toog ci catu lal bi ba mu yàgg nee na femme bi daal di jóg dugg ci ci salle de bi summeeku daal di def yaramu neen ko ni ko ndeyam juree woon nee na nag dafa tàmmoon di kaf ak bi nee na mu jóg toog daal di reene femme bi li nga def nii rafetul de neena na femme bi reene ko ax ah, dafa tàng nee ci noonu nag moom ci la wonee femme bi ginnaaw daal di tëdd won ko ginnaaw nee na fi mu ko wonee ginnaaw dafa jékki-jékki rekk femme bi daal di plongé ci kawam nee na bi femme bi plongé ci kawam nag nee na mu daal di jóg bu ma ko daan ne ko yëfi nàngamtaan ndayam yi indiwuma ma fi ba nga xamee ne lii moom moom nga ma fi doyee waroo woon a bàyyi ma ñëw pour man sama xarit nga moo tax ma ñëw seet si la nee na nag ci la ko femme bi waxee ne ko yow xam nga lu ma la yëgal li ma la li la fi indi di nga ko def maanaam dama bëgg nga sekk ak man te di sekk ak man far force maanaam femme bi daal ne ko alaa dee di ma cukkum njaay mu ne ko cëy yàlla xaaral ma naan sama café silaasit man nee na femme bi ni ko li ma bëgg soo ko deful am na ku nekk ci suuf yow gis nga ko bi ngay yéeg kooku rekk dina lijjanti say mbir nee na mu ne femme bi kooku maa ko sut maa ko ëpp doole te man duma ragal te nga maa ubbil ma dem nee na femme bi ne ko dinaa la ubbil nga dem mais damay yuuxu ñëpp ñëw ma ne leen danga ma doon violer te su boobaa di nga dugg kaso nee na nag moom genre nit la boo xam ne moom wax dëgg fa yàlla kaso waxu ci daara dafa ragal kaso nee na nag bi ci femme bi indee kaso mu ne ko amul problème dinaa la ko defal mais nag xamal ne su ma ko defee ba pare su ma ñibbee dinaa ko tasaare ci groupe whatsapp bi ñu xamante nee na femme bi ne ko yow la rek lu la neex defal nee na ci la accepté mook femme bi nee na femme bi dem génne ay arsenal am lépp daal ndaw si faalewu ko daal di yëkkati cent mille francs daal di koy jox nee na mu bañ ne ndaw si bëgguma sa xaalis mais nee na ndaw si insisté jël cent mille bi dugal ko ci poosam ne ko jëlal nee na mu ñibbi bi mu ñibbee nee na mu yëkkati téléphone whatsapp bi dem bay partage affaire bi ci group bi wax leen ni ko ndaw si def ci ndaw si ci groupe bi la ñu xamante ni ko ndaw si def bi mu ko invité këram mais nee na dafa mel ni daal daa am lu ko retenir ne ko noonoo bul def loolu nee na mu daal di tegaat téléphone bi jotul a nettali histoire bi ci groupe whatsapp bi nee na nag mu toogaat toogaat ba mu yàgg nee na xel mi di nekkaat ci ndaw si mais nee na mu jéem a maîtriser pour bañ a woowaat ndaw si nee na ndaw si toog ay quelques jours daal di koy woo téléphone laaj ko ci lu mu nekk nee na mu liir vocal bi faalewul ndaw si nee ndaw si envoyé waat ko photo bu rafet a rafet rafet te moom nag wax dëgg fa yàlla nee na jigéen bu xees moom la rab yi di bañ a gis nee na mu xool photo bi bi mu xoolee foto bi nee na mu daal di tontu ndaw si nee na après mu ne ndaw si kañ la ñuy gisante mais bëgguma ñu gisante sa kër dama bëgg nga ñëw ñu daal di tase mbuur daal di fay gisante ndax nag nee na wax dëgg fa yàlla li ko femme bi defal ci xeetu plaisir jour boobu ba mu juddoo ba tey kenn mësu ko koo defal. nee na femme bi d'accord ak moom nee lu tax nag set fois-ci mu choisir Mbour parce que moom kër femme bi xelam dalu fa maanaam ñu tase foo xam ne ñoom ñaar fa bokk yam moo ko gënaloon. nee na femme bi ñu joxante rendez-vous femme bi daal di taseeg moom fële ca Mbuur ñoom ñaar nee na biñ fa tasee nee na nag ci la ne femme bi yow ñaata at nga am nee na femme bi ne ko yow ñaata at nga am nee na mu ne femme bi man maa ngi am 35 ans nee na femme bi ne ko ah loolu daal du ci dara yow déjà sax yaa ma magee benn at nee na mu daal ne maa la magee benn at ak mageewu ma la benn at yow daal l'essentiel mooy lii ñuy def waruñu ko woon a def nee na nag jour boobu tamit ñu daal di yendu foofu ca mbuur ñoom ñaar nekkal ko ca defaat ba mu baax comme d'habitude nee na nag wax dëgg fa yàlla depuis lors mook femme bi def nañu deux mois di ko séek nee na temps en temps femme bi yëkkati may ko deux cent mille cent mille may ko xaalis bu bëri daal mais nee na dafa dem ba réfléchir mu xalaataat ne moom wax dëgg fa yàlla moom dafa nekk nit koo xam ne dafa euh, amoon yemoon ci benn koppinam te it mi ngi saax saaxee boppam ci femme bi femme bi da koy utiliser. nee na mu daal di poser femme bi benn question daal ne ko yow xanaa amoo jëkkër wala lan moo xew ak ni nga bëggee góor ni ndax à chaque fois dama lay def lu méttee metti mais soo paree danga may xëccaat nee na femme bi ne ko man daal sama jëkkër dafa disparaître ça fait six ans mi ngi nii teguma ko bët. nee na loolu daal la ko femme bi wax nee na après femme bi jox na ko turam ak yépp mais nee na moom femme bi tur bi mu ko jox sax est-ce que loolu dëgg la. nee na daal wóoluwul femme bi actuellement nii nag mbokk internautes yi nee na dafa bloqué ndaw si lu tax mu bloqué ndaw si ndax moom ci boppam dafa sentir amee ay feebar yu sew sewaan ci yaramam ndax nee na dafa dem a dem ba léegi suy saw day am problème mu saw maanaam day sentir lu méttee méttee métti bu waree tuur ndox. nee na nag wax dëgg fa yàlla loolu jaaxal ko ba tax na nii nii bloqué na ndaw si ça fait deux mois ngi nii mi ngi ko bloqué. mais daal le fait buy saw daal di am ay jafe-jafe tax na mu daal di indi nettali bi émission nettali pour ku ko mën a jàppale ba mu jóge ci jafe-jafe yooyu mi ngi noonu nag waa ji li moo nekk histoire am ñuy waxaat rek gis nga bu ngeen bàyyiwul lu ngeen gis rek ngeen daat ci càpp daat ci càpp bis dina ñëw di ngeen am ay conséquences comme ni mu ko waxee moom waa ji nee na jigéen bu xees lay bañ a gis jigéen bu xees ak jigéen bu ñuul la ci yem nit da ngay yar sa bakkan ndax yaa ngi nii daal di joxe benn siiñ benn feebar boo xam ne feebar boobu wax dëgg fa la nu mu gën a gaawee balaa internet di la jox seen xalaat dawal nga dem hôpital ndax nag boo demee bay saw saw bi di metti ci góor nekk sax feebar bi may xalaat te feebar boobu moom dafa xaw a metti xaw a bu la dalee bala ngaa wér di nga fajoo faju bu metti lii rek doy na leçon ba ngeen war a bàyyi li li li Mbay Njaay di woy naan bàyyi leen ku ngeen gis ngeen dugg ci moom te xale yu góor yi tamit wala moo xam jigéen a yëpp bàyyi leen ku ngeen gis ngeen sekk ak moom ay rapport sexuel saa ngeen protégé wu ndax àddina wóorul jamono wóorul surtout koo xam ne xamoo ko xamula lu dul da ngeen a tase ci war whatsapp salaamaaleykum maaleykum salaam nga dem fa di capp di teen ba yaa ngi ni am ay jafe-jafe yi nga xam ne yaa ngi naan dangaa commencé di am ay problème boo dee saw muy daal di metti mais nag yàlla na la yàlla teggi nattu bi te am naa yaakaar na xëy na bu la yàlla dimbalee ba nga wér incha dootoo ca delluwaat ndax yow moom tiire nga ci leçon bu am solo solo ba tax na mbokku internet di nee na da koo indi fii pour ñu jàppale ko ci solution te it nee na amul confiance ci ndaw si nee na non seulement tur bi ko ndaw si jox doy ko ndax mun na am ndaw si dafa changé tur daal di koy jox beneen tur xamul fu mu dëkk ndax jéemoon na ko koo laaj mais nee na dafa bañ ay ca mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax duma ma terminer te jaajëfalu ma ñi nga xam ne moo di waa le Coran nga xam ne seen kafe bi macha allah dalay sawarloo dalay jox kàttan te it wax naa leen ko xale yi jigéen yéeg jeeg-jeeg disket yëpp mun nañ ko utiliser dafa nekk surtout kafe silagite bi nga xam ne moom boo ko naanee da ngay delluwaat nekk jeune maanaam sa ay vingt ans ngay delluwaat lay jàppale ci sa wàllu yaram beneen bi nag nga xam ne mooy pawo kafe moom macha allah nee naa leen góor ñi nga xamante ne dañoo néew kàttan ci seen wàllu néegu sëy nañu dem di utiliser lii di pawo kafe bu ko defee bu ñu woowee wàllu courant soigne ci 77 999 76 96 wala 76 374 78 98 waa courant soigne bu ñu leen proposé bii di Power Café macha allah dina leen yokkal seeni kàttan ay ca mi ngi noonu di jaajëfal Kanasatu la coréenne moo nekkoon ci caméra bi di ko nuyu bu baax a baax di nuyu suñu DG Sey Latir nuyu équipe bu technique bu Thiès Info yëpp di leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneen i nettali d'ici la porte vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info ñu daal di koy terminer. ak suñu kaasu kafe si la